xew ñu ku ma fi jàppoon ni doo ma parce que boo ma fa yóbbu coono yu bari. foofa xëy Modou Kara rek ka fa nekk. kaso boo may waaye bu mu doon kaso yi. waaw xanaa ñu def na résidence surveillée fële Proxal. waaw kon jàmm ni ñooy moom. ndax su ñu bu ko kenn waaye bu dul loolu daal. Mm-hmm. Ah, ah te bu ma tëb bi wax di sànni de. Mm-hmm. am na ñoo xam ne dañuy am yu ñuy jéem mati du leen calmé yooyu yëpp yëg naa ko man maa ngi fépp dëgg am na yoo ñoo xam ne day am yu ñuy jéem mati du leen calmé jarul sax mu leen di calmé mën na leen a bàyyi fii boo ñëwee yaa ngi fi fekk birasu aw waana sëriñ birasu ma